يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokki jullit yi mbokki dëkkandoor yi mbokki saalum mbokki soorom ak li ko wër mbokki sénégal ak àdduna bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ci tur suñuy kilifa Ababacar Cissé ak Keba Cissé suñuy bàyyi ñu yóbbaale seen rakk yépp di leen yëgal gàmm ak soorom gàmmu soorom ñu ngi koy def le 22 mais ñu ngi ciy woo bépp jullit ak foo mën a nekk bépp taalibe bépp mbokk bépp xarit bépp am di jàmm ñépp ñu ngi leen ci woo ngeen ñëw ci bàmm googu di ñaan yàlla ñépp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm yàlla nangul képp ku fa ñëw defal li yiw ak sutura ak triangle ya yu daiman iman di wo mbokk julit yépp ci bisu lislaam bisu daara waaye bisu xam-xam di gàmmook sorom mu ngi am le 22 ci weeru mai mu ngi amee ci ndigalal xalifaab maam xalifa di cheikh sayid ahmad Tijani tijaani di amee ca sorom mu ngi ci région wu Fatick jege Passy lool waaye nekk ci commune bu Diagane Barke bis bi yàlla dogal na kilifa yi ñu xam ñoo nekkoon ak moom naka jekk ndax sooram ku ko xam xam ko muy dëkku alquran xam ko muy dëkku leer waaye xam ko muy dëkku xam-xam sëriñ Ibrahima Dieng mi ñu gën a miinee ci maam Ibrahima Dieng ma ko sancoon ànd ak ñoom sëriñ Aliou Cissé sëriñ Mamad Kareek ñooñu ñëpp seen mission liggéeyal lislaam la woon yàlla dogal nag seen sët moo amoon ndigal ci ay kilifaam samp bis bii muy suñu jur baay alxaaji Ousmane Cissé ren mooy nekk treizième. ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew yi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew.